asalaamaaleykum mbokk yi tey jii di àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru koor di guddi ñaar fukkeel ga ak juróom-ñeent sëriñ Soñ bi wax na ci xoratul xay ni guddi ñaar fukkeel ga ak juróom-ñeent ku ci julli la mu julli woon ca guddi ga ko njëkk